maa uyubi wa maa ifaasi man xaadani sukura fi anfaasi maa uyubi wa maa ifaasi yonte yàlla Ibrahima nag loolu misaaloon sëñ yonte yàlla Ibrahima aleyhi salaatu wassalaam diine yëpp dañoo connecté ci moom diine yahud diine nasaraan ak diine islam moo tax seen i mbir may wax naan jënn dafa nuru seydna ibrahima moomu nag alayhi salaatu wassalaam ah mooy ki nga xam ne nii mënoo koo tudd te tuddoo kaaba gi di cee def lu am solo ndax da ko dafa tabaxaat ndax kaaba gi malaayika yi comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp ñoo ko njëkk tabax ñu dem ba ci yàgg mu ne mër réer kenn gisatu aadama alayhi salaatu wasalaam ànd ak doomam ci sa ñu tabaxaat mu jekkee ci jekki ne mër kenn gisatu ko sunu maam ibrahima alayhi salaatu wasalaam ak doomam ismaila tabaxaat ko te yaakaar ne duutul ne mër yaakaar naa loolu kon dafa am cër bu rëy ci kaaba bi ba ko ko suñu borom wonee nag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 doom ju góor joojee suñu boroom may ko ko te ba mu ko koy may boobu mi ngi am quatre-vingt-six ans kon loolu ñaare ñi fi mënatee am doom sax bu bari donte mën naa am te téeméeraat yooyu suñu borom may ko ba mu ko mayee doom ja doom ji dem ba màgg ba fi ko bàyyam di gën a bëggee suñu borom ne ko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 dañuy tiit dañu jàpp ne yàlla da leen a waaye tam jibril bég na ndax mission bi ko yàlla jox ne ko gaawal yàlla moom yi dama am roy saara chaine yàqoyloo kun fa yakun lu mu bëgg rek tactique mu am ci bu ko bëggee rek du fa sax nekk naan kun loolu misaal la rek ndax kun sax gudd na waaye bëgg ga mooy am ga bëgg ga rek mooy am waaye tam doom ji tam bég na lu tax mu bég parce que dañ koo waroon a rey